laaj yow laay jox kàddu gi rek ñu daal di dugg nag ci match suba bi incha allah. voilà suba Sénégal ak ak Algérie bu baax léegi ñu ngi ñu ngi koy wax euh, mais bu ñu xoolee sunu euh, parcours match yi nga xamante ni muy match de poule yi euh, am na ay déchets yoo xamante ni amoon na ci ñu seet ni au fil des yi dafay am ay rectificatifs yoo nga xamante ni l'entraîneur Aliou Cissé mi ngi koy mi ngi koy indi bu ñu xoolee au début on pouvait dire que nous avions une sélection mais au fil des matchs. une équipe commence à se à se dessiner est-ce que demain véritablement mën nañu euh, jéem a maintenir les les les hommes les les mêmes personnes euh, excepté Kalidou Koulibaly euh, système bi aussi tamit dañu koy bàyyi noonu wala dafa am ay quelques réaménagements yoo xamante ne dinañ ko ci indi onze de départ yi ak bi nan ngeen jàpp ni noonu la war mën demee. du sorek ñi demi-finale équipe bi du sorek parce que onze de départ bi gis entrevoir nga ko ci demi-finale yi bërki bërki démb xoolal dama lay jox exemple gis nga. lii nga wax c'est tellement important plus ñuy avancer plus ngay gis équipe bi di nekk bloc xam nga lu koy def Ndiaye Dos. Mm. ça fait longtemps tooguñu di jouer au rythme d'un match tous les quatre jours avant ils avançaient au rythme deux match tous les deux mois avant bi ñuy wax amul automatisme Aliou Cissé n'a pas une équipe dañu doon daje deux jours avant le match jouer deux jours après ku nekk ñibbi ku nekk ñibbi moom laa doon wax naan équipe nationale dafay niru orchestre bu war a te du répéter orchestre ñoom Youssou Ndour ñoom Baba Maal <coughs> Oumar Pène dañuy répéter tous les jours bu ñu ñëwee spectacle day neex jaraaf Gorée Jeanne d'Arc dañuy entraîner tous les jours day am automatisme mais équipe nationale amul entraînement amul répétition da ngay ñëw ngeen daje na nga def ça sax mu ay gan yoo xamul ngeen war jouer le lendemain bi ils sont ensemble depuis un mois di jouendoo di préparer ay match amicaux automatisme yi di tissé wu complicité bi di tissé wu le plaisir d'être ensemble ce sont des copains di tissé wu après jouer devient facile moom nga constater ni l'équipe s'améliore au fil des matchs loolu nag doo ko am lu dul période stage CAN wala coupe du monde mhm. d'accord donc alors euh, tey nan nga jàngatee jeu wu algérien yi nga xamante ne nii saa su Sénégal dajeeg ñoom rek day am problème yow tamit ak am Amadou Diop ñaar ñëpp mën ngeen a tontu ci question bi. waaw joxal Amadou ñu jox ko waaw algérien yi seen jeu. algérien yi je pense que ni ñun euh, jot nañ si am jàngat d'abord bu ñu xoolee si match bi ñu jógee ñoom nee naa leen match boobu moo mujjee lëmbale Sénégal si la coow lu yëpp am. Mm-hmm. mais match boobu aussi moo ñu defar ñun. defar nañu si si sur le plan footballistique mais defar nañu si baatin parce que moo ñu propulsé ba nga xam ni defar suñu yoon bi nga xam ni dootuñu de tasex grosse équipe mm-hmm. ba final mm-hmm. tandis que moom mi ñu gagné après ay match yu nga la amoon si kanamam ay équipe yu rëy rek mm-hmm. mais donc loolu wane na ni Sénégal am na chance sam buur rëy rëy rëy si coupe coupe bi parce que nag loo leen munti wax compétition bi dafa ànd ak chance. Mhm. chance dafay topp nit. te Sénégal boo ko xoolee chance topp na ko. est-ce que du chance Sénégal naroon nekk ci Égypte parce que gisoon nañu ni Caire 86 Sénégal dafa fësoon ñëpp gis ko euh, ci 2019 bi tamit Sénégal tamit fësaat lool ci kan bi. si naaw si même 2006 ci 2006 aussi tamit man man si sama jàngat bu gàtt. naar naar la. Mhm. bële Égypte la woon mais bii Algérie la te comme Algérie dafa am lu mu leb. wax dëgg yàlla war na fay bor bi suba. mais ci nan nan nga jàpp ne noonu la euh, war a mën a fay fay fay bor bi. parce que ñun dañu gis ni sunu sunu defence bi euh, day am un réaménagement boo xamante ni daf ci daf ciy am mais ñu gis ni sunu milieu bi aussi tamit ci quinze premières minutes yi à chaque fois dafay am mais mésentente boo xamante ne day am entre Idrissa gànn ak Pan wala euh, wala euh, bon mu am benn c'est-à-dire en fait du am benn benn fluidité boo xamante ni dafay am euh, ci ci jeu bi comme seen jamono ni mu doon ni mu doon demee nga xamante ni bu bu Boy Bandi téye bal bi da lay wóor ni Thierno mu la ko jox Thierno Youm bu ko téye wóor na la nii cest dire en fait fluidité boobu mu amoon c'est ça qui manque à l'équipe nationale ouais, du Sénégal waaw mais man man je refuse toujours yenn yenn comparaison yi. j'ai di que comparaison n'est pas raison d'abord génération yi bokkuñu Ablaye wax na ko mais si suñu équipe bi ñu yor boo toppee équipe bi dafay yéeg en puissance te compétition nag loo ci mun munti wax boo amee demee ba trouver sa équipe de base da ngay ñaan que mayonnaise bi jël forme te ñun Aliou ba mu demee ba trouver le bon. onze Sénégal amatul problème beneen bi compétition bi il s'agit pas de bien jouer la preuve ñun li ñuy wax nii yëpp ñun ñoo dem final. Mhm. beneen bi benn bi dong lañ jël. Mhm. mais ñaati bii lañ dugal. Mhm. kon kay wax dëgg yàlla bonul. mais beneen bi groupe bi Aliou yor ça fait combien d'années mu ngeex moom loolu dafa am solo. dafay am base équipe dañuy miinante te ñii ça fait combien de compétitions ils sont ensemble. moins kan ku ci nekk. mu ngi noonu donc loolu c'est de bon augure pour ñun loolu si si li nga xam ni moom lañ doon ñaan la beneen bi may wax nag mooy quand tu regardes le match contre l'Algérie Gana joué wul. Mhm. Mhm. Ismaïla Sarr joué wul. mais tey si suñu match suba bi si kattanu suñu borom ñooñu dañ leen di am mais comme suñu Kalidou Koulibaly la ñuy ñëpp di jooy mais boo xoolee ñun suñu titulaire dëgg du woon Cheikhou Kouyaté. Mhm. Salif la woon. mais blessure moo ko génnee. Cheikhou Kouyaté ñëw. bu mu ñëwee wone lu jéggi dayoo. tey amul kenn ku am fitne da ngay génne Cheikh Kouyaté foofu si axe bi mu ñëw def benn duo moo Kalidou mu indi stabilité wu si équipe bi donc booy xool sur le plan défensif l'équipe était équilibrée et que c'était la force de l'équipe mais jeu collectif bu équipe Sénégal bi ça reste un peu duñu gis ne ne parfois duñu def en bloc am na ñoo xamante ne dañuy bëgg def individualisme. waaw mais loolu loolu. mooy liggéey nag dem dem ba jeex. dem ba <laughs> jeex à chaque fois parfois collectif bi am solo man yéen termes yi ngeen utiliser man bokkul. nga dans un de football. Mm-hmm. dafa am loo xam ne moom la ñaan di ko wax équipe pour si taxawaayam beneen bi mooy comme le jeu bi ñu produire ñun boo xoolee. Euh, le le jeu de l'équipe comme tu dis da ngay dem benn période nga ne que mais sur le plan collectif on n'existe pas mais mm. c'est parce que quelque part suñu équipe amul constance boobu naar yi ils ont leur culture footballistique mm-hmm. naar yi moom loo ci mënti wax équipe bu onze naar bu taxawee doo gis ni kii cuune la tandis que yenn équipe yi di nga wax ni fii kii daal wax dëgg yàlla kii warul football beneen bi suñu équipe sénégalaise ñun dañu am ay individualité yoo xam ne dañ si compter trop benn mooy sunu Sarr Sadio mais beneen bi dafa am loo xam ne dafa feeñ si biir compétition bi mooy arrivé CV Pape Alioune ak gànn mais boo xoolee nag loolu mooy li nga xam ni mooy le profile sénégalais c'est loolu mooy chance Sénégal parce que gànn ak Pape Alioune ànd nañu tuuti tànk mais donc mais ah, ci 15 premiers bi à chaque fois ñun dañuy am mmh. problème. waaw xaaral rek xaaral non ci te Laye Diaw doon naa dégg muy wax naan. Mmh. équipe ci quinze premiers minutes yi ci nga mën a tàggali ko ak moom US Gorée ci ay jamono seeni jamono yoon gisoon nañ ko fii boobu lañu war a xam valeur euh, footballistique bu bu bu sénégalais ci 15 minutes ñu dugal ci 3 buts mais léegi mënatuñ ko am yaa am cest à problème bi problème bi lan la. non man boog man li ma jàngat soo xoolee Sénégal 15 premières minutes yëpp dafay taxaw. après kay la lay woon leneen pour après nag rattrapé wu waat ñëwaat si match bi Algérie bii ngay wax jëlaat leen cassette bi ngeen xool les quinze premières minutes u équipe sénégalaise bi. Algérie dañu daw ci gannaaw. dañu daw. Mhm, dañu après nag Sénégal moo lâché. waaw mais mooy li li Fatima di wax rek. waaw mais loolu moom laa lay wax nii. xam nga dans un match de football daf y a des à à à à prendre. Mhm. ñun ñële lii seen culture du suñu culture. ñun dañuy am ay temps fort war ko mun a exploité mais man li ma gis équipe sénégalaise bi di dem à chaque fois bu génnee si matt bu ñëwaatee beneen match mu ngi def benn jéego ce qui veut dire match bi ñu génn gars yi ñu am na jàngat gu rafet guñ si def. Mhm. ba mu war leen jox doole goo xam ne équipe bi dinañ ko gën a respecté te loolu lañu liir ba nu ñu ñëwee tey final mois je pense que il est il anormal. que ñun ñu bëgg a jàpp ni suñu équipe euh, sur le plan collectif non dafa am équipe yoo xam ne c'est leur culture Tunisie ni muy jouer Égypte ni muy jouer euh, Algérie di ko jouer Maroc di ko jouer c'est leur culture. mais Alaaji yow gis nga par exemple bi nga bi nga nekkee bi nga nekkee par exemple professionnel. Mhm. Euh, football nga ak euh, championnat bu bu Tunisie. Euh, gis nga égyptiens yi gis nga itam marocains yi bu ñu xoolee Afrique du Nord. pratiquement mhm. seen football yëpp benn la. Mhm. vivacité la te lu ñu jàpp du ñu ñu du ñu bàyyi. quel doit être le comportement des gosses demain. pour ñu mën a nag jéggi Algérie bi nga xamante ni donte gañu nañ ci match de poule yi euh, mais euh, du gagné boo nga xamante ni bu bu set la quoi. bon man je me je bien euh, yàlla na ko yàlla yërëm te ñu muy coach Pape Diop moom moo ñu jëkk jàngal nan ngay leex naar te boo xoolee suñu génération dañ ko réussir. Mm-hmm. on a vaincu le signe indien parce que dans temps euh, génération yi jotoon jaar yëpp. naar yi ñoo doon yàq suñu ñoo doon xawi suñu sutura parce que bu ñu demee ba am match qualification ak ñoom soit fii lañ ñuy éliminer wala ñu dem seen dëkk ñu éliminer ñu mhm. Sénégal loolu moo taxoon ñu toogoon dix-huit ans mhm. ñu dem mais toujours phase décisive yi mhm. muy phase de qualification soit Maroc lañu am wala Tunisie wala Algérie moi je me rappelle bien joué naa contre Algérie boobu suuri moo ñu yóbbu à Alger mooy ñoom Gendouzi ñoom Madjer waaw ñu def fa un match bu mais époustouflant xaw leen rey dans le jeu mais au finish arbitre bi moo ñu rey ñu gagné ñu. mooy bi ñuy jëli ji Ablaye Diallo ak Omar Gueye seen waaw comme Senef ñu ñëw rejoindre ñu ñun les ko boobu temps suuri la woon am na benn boo xam ne fii Demba Diop contre Tunisie bi ñu woowee Badou Gueye Seydou Ba ak yooyu ñoom ñu gagné ñu mhm. mais bi ñu demee ba def jàngat bi Pape Diop daf ñu ne lenn na di nga naar yi ngeen ñuy jël buñ ne privier leen seen kaw ñoom dafa am loo xam ne ci seen deret la dañu collectif bal bi munoo fexe ba duñ ko joxante donc quand tu les dañuy am problème mm-hmm. beneen bi aussi naar bu ko woon mukk da nga ko da nga ko da ko ragal mm-hmm. beneen bi ñoom quinze première minutes la ñu def seen bopp noo def dinañ la bousculer pour dugal le but agressif boo fekkee ni quinze premières minutes yooyu jaar na ñoom dañuy commencer di douter benn seen public tàmmul loolu dafay commencer nag di imp. d'accord mm-hmm. kon suba bu ñu ñëwee rek euh, dañoo war a yëg seen kaw. voilà donc muy dañoo gis ne euh, voilà euh, demi final bi c'est vrai que la victoire elle belle donc ñëpp kontaan nañu mais tamit bu ñu tenir compte rek ci ne euh, bu duggul. donc voilà peut-être erreur moo am côté bële moo ñu may tey victoire ndax tamit waruñu tenir compte ci boobule parce que booy seetloo tamit ci quart de finale bi euh, ci quart a dugal ba tey mhm. donc ndax waruñoo tenir ci kii bi te suñuy adversaire ba léegi ñoom kii wuñu waaw man de man li ma si ja li ma si jàngat mhm. gis nga match football booy wut incertitude si football nga koy jàppe parce que ku munoon takk ni Tunisie boobu parce que Tunisie Sénégal moo ko mun première mi-temps nag lu wax deuxième mi-temps la tunisien yi ñëw wan ñu loo xam ne kenn xamuloon ni loolu làq nañ ko mm. d'ailleurs dañuy cartonné sax si première minute yooyu mm. ñaata yoon la gars yi waa ji échappé on a eu un naa moom mooy homme du match mais beneen bi moi je refuse de de de de de comprendre li nit ñi di wax nii bii bi si erreur la ah mais mooy mooy suñu chance bu ñu yóbbu final mm-hmm. munoon dem dem munoon nañ dem tir bi but du dëgg comme yàlla def na egguñu fa match boobu moo ñu doon yóbbu finaal te match bi boo koy xool si jàng dafa bëri tournure. daf may jox sa match contre Côte d'Ivoire. Mhm. penalty raté d'un côté penalty raté de l'autre. Mhm, mhm, du dëgg. ok en 86. waaw donc loolu soo ko xoolee. Ah, avant Abdoulaye Traoré di ñëw di yàq di këpp. voilà léegi nag ñun si lañu am ñun tamit ñoom ñu këpp seen yelwaan booy xool jàngat ci match boobu. Mhm. match la yoo xam ne munoo ko natt fenn match bi nii la def toogul taxawul. Mhm. du dëgg kii day day jëkki jékki téye match bi mu jékki-jékki rëcc ko kële jël ko ñu dem ba nit ñaa ngi xalaat sax penalty yàlla def ñun ñu am ci biir boobu dem final moi je dis dañuy sant yàlla ci match boobu. parce que comme des fois sax dañuy wax ni rëcc nañu. Mhm. waaw comme rëcc nañ ba dem finaal match boobu nañ ko fàtte. yàlla léegi man xam nga ma bëggoon laaj rek euh, doyen par rapport ak match bu dem bi tension euh, mën dina am du mën a ñàkk euh, parce que gis nañ ne entre algériens yi ak égyptiens yi également neexoo ñu seen biir gis nañ ñi nga xamante ne mu ngi dox seen digganteeg yooyu te suba mm-hmm. public lu ci ëpp gis nañ ne mm-hmm. public égyptien bi dañuy supporter les lions est-ce que loolu suba également du indi benn problème ci biir stade bi laa bëgg nga ñëwaat ci tuuti rek ci diggante boobu amoon. a yàgg ci seen diggante. Mhm. daf ci am benn bu ma fekkee. <coughs> gis nga 90 ñun bi ñuy demi finale ak Algérie. Algérie 90. Mhm, c'était en 90 xam nga Égypte lu mu def ci kaanu Algérie bi. Mhm. dafa indi équipe B. dafa indi équipe B. loolu mooy lan juste politique de présence lay def. il faut Algérie wutuma ci dara. les Égyptiens n'ont pas oublié. entre eux toujours nii bu dee seen diggante ñoom toujours nii léeg-léeg sax ca feewu arbitrage. gisoo li li li li am suñu digganteeg euh, xam nga arbitre bi changé waat nañ ko. sud africain bi ñu programmé woon. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi indi nañu Cameroun. Cameroun bi waaw. parce que dañ ni c'est pas prudent ñu bàyyi sud africain bi parce que dafa am un contentieux Sénégal Afrique du Sud. ci mm-hmm. suñu match à rejouer ci coupe du monde ba. ñoom ci yooyu day am seen diggante. égyptiens yi ils ont dit à haute et intelligible voix Sénégal la ñuy supporter. Mm. oui c'est ça en loolu nëbbuñu ko donc loolu est-ce que mënul indi benn problème dafay buy yem ci seen biir. ñoom tàngal buy yem ci du egsi ci ñun. Mhm. Euh, euh, la copine de Mbaye Niang. Mhm. avec son ci mbedd waa ji agressé ko ndax maye bi mu sol. da ngay am envie xeex yi. Mhm. surtout te gis nga boobu moo du provocation. naar bi pour mu bàyyi ko foog nga fekk ko ci. moom lay wax naan. foog nga yéeg seen kaw. Mhm. foog mu tàng pour ko ñu bàyyi. boo leen bàyyee ci seen sago yow doo am sago. d'accord xam nga dañuy wax ni capitaine dafa war a mën bës mhm. capitaine dafa war a mën bés yow nga nekkoon capitaine Caire 86 sànq yaa ngi wax Pape Diop Pape Diop bi mu lay jël da def capitaine boobu da nga bokkoon ci joueurs locaux yi. Mhm. te amoon na ñu jóge woon. Europe. Eh, ñëwoon yow mu tànn la lan moo taxoon choix boobu noonu mu jël koo xamante ni fii la nekk. def ko capitaine te alors que am na ñeneen ñoo xamante ne nii dañuy jàpp dañuy jóge France ñuy ju ñuy joué ji leen dëkk ñoom ñoo gën mhm. waaw parce que gis nga mbiru capitaine sax euh, dafa dafa dafa yéeme dafa yéeme parce que des fois tu te la question si yan critère lañ koy wekk euh, bi may nekk capitaine maa ngi ko commencé tuuti tànk. jaraaf nga nekkoon. jaraaf junior j'étais capitaine. équipe nationale junior j'étais capitaine Jaraaf senior j'étais capitaine équipe nationale senior j'étais capitaine mais loolu yëpp euh, dama koy delloo yàlla parce que génération boobu dafa fekk ñu ànd ensemble tuuti tànk dañu joué nawetaan yi suñu koñ yi ñoo doon tase match scolaire suñu suñu école yi ñoo doon tase quinzaine ak semaine de la jeunesse ñun ñoo doon ànd GIA ak Jaraaf ki Gorée Casa Sport ñun ñoo ñoo doon tase di dem tase tamit équipe nationale junior mu doon nag aboutissement bi en équipe nationale senior donc ñun boo xoolee dañu dañu dañu jël escalier yi benn par benn ba nag dem ci coll ba taxaw fa ta tase donc loolu moo taxoon suñu biir mu amoon complicité mais beneen bi. est-ce que complicité boobu am seen biir est que gis nga ko ci équipe nationale bi. waaw j'ai j'ai vu que nii xale yi. Euh, quand tu les entends euh, si seen journal de la CAN yi bu ñu defee yenn reportage yi da ngay wax dangay dangay gis ni l'équipe vie bien te loolu dafa am solo beneen bi aussi boo gisee sax yenn reportage yi da ngay gis ni ñuy ñoom gànna ni ñuy déconné ba ci Sadio bi nga xam ni Sadio nii rek nga ko doon gis mais gis léegi gis nga ko donc euh, loolu moo lay war ni l'équipe vit bien la l'ambiance elle est très bonne mais euh, léegi bu ñu bu ñu ñëwee ci ci ci équipe bi. Ndiaye bàyyi ko mu eggale ci capitaine bi par exemple le fait que comme genre bés yu mel ni comme suba capitaine taxawaay ban la ci war a am ci biir terrain bi. waa d' abord d' abord euh, ñun suñu biir capitaine bi dina woote réunion boo xam ne comme tey veille bi dinañ woote réunion boo xam ne ñu ni neen la ku nekk ñu jox la kàddu si ñun ñu déglu la nga wax pour finalu suba bi parce que. match bi lu mu munti demee waruñu ko yenu parce que boo ko yenoo rek fois boobu mun na mun na impacter suba donc ñun suñu bopp ñun ñooy jëkk a jox suñu bopp euh, motivation force beneen bi si nekk nag mooy que ni suñu waay match suba bi léegi li xew Dakar mooy li ma la doon wax rek li laay wax buñ leen munoon woon ni Sénégalais yi di préparer finale bi. waaw te ñoom yëg nañ ko parce que. réseaux sociaux yi ils sont sur les réseaux voilà mmh. sànq dama jaar ngeen baal ma dama jaar HLM. Mmh. j'avais les larmes aux yeux. parce que parce que sama xel dafa am fu mu dem fu sori. dama gis ni waa quartier bi. ngandam banderole vert jaune rouge loolu da nga ko doon gis ci seen équipe nawetaan yi bu ñu final mmh, ñu jël buntu kër yeeg garab yi. def ko vert rouge. Eh loolu moo lay won nii euh, le peuple a porté euh, la finale mm-hmm. jël na ko mm-hmm. peuple bi moo ko jël te loolu dafa mm-hmm. am solo gën na am mooy mooy li ñuy wane nii mooy image yi ngay gis nii mu ngi nii gën na am loolu gën na am beneen bi euh, man damay wax ni en passant c'est des signaux oui lii xaw nag yàlla ko yàlla ko xam mais suñu réew dafa soxla victoire bi est-ce que lu tax ñu soxla ko euh, umpu leen coowum pétrole ci pétrole bu ñu gisul dëkk boo xam ne pour nga dëkk boo xam ne euh, quatre-vingt-cinq pour cent c'est c'est des musulmans dafa am lu ñu gëm xadara yaa ngi fi par ajjuma ak lu nekk daayira yaa ngi fi lu nekk a ngi fi donc dëkk yu mel noonu bu ñu waree mun a toog pour jaamu yàlla mm-hmm. il faut ñu am jàmm est-ce que jàmm mais mais mais nag coupe bi bu ñëw fii itam du tee pétrole bi moom ak gaz. non non non du tee pétrole bi ak gaz bi dina leer de. non li ñu ñaan mooy na coupe bi ñëw. mais pétrole bi ak gaz bi dinañ ko leer dama la bëgg a wax ni loolu àndul ak compétition bi. àndul waa dañu positif rek. parce que parce que tey boo ko xoolee mooy yéen a ngi wane image yi. Mhm. drapeau yaa ngi génn ak loolu. ce qui veut dire sénégalais bi drapeau bee ko ñor tey beneen bi. dañoo jooy a jooy a jooy ba mënatuñu. <laughs> mënatuñu xam xam naa mais mais mais mais ma bëggoon wax nday nday nday nday diime par exemple eh, li li mu la wax ni la euh, capitaine comportement am lan la war a nekk. sama xel dem ci en 2002. Mhm. Euh, am na benn instant boo nga xamante ni. Mhm. dirigeant yëpp dañu lafu. Mhm. dama bëgg wax nii bés yu mel nii. est-ce que du capitaine bi mooy jël ay responsabilités daq dirigeant yi. ñu toog ñoomi neen ak ban bi waxtaanee solo si nga xamante ni euh, moom la moom la moom la mbir am est-ce que du foofee euh, la ñuy wane euh, maanaam grandeur bi nga xamante ni un capitaine d'équipe daf koy am un capitaine d'équipe à chaque fois dafa war a nekk un meneur d'homme waaw mais moom laa la wax nee naa la bu ñu bu ñu tasee ñun ci salle bi man dama doon wax ku nekk jox la parole loo ci xalaat après man may tëj mais li may tëj mooy si li nga xam ne moom lañ ma tàggatee moom lañ ma yare parce que man ak sama génération boobu dafa am dem différence parce que j'ai eu la chance loolu chance la man dama jeex mag ñi sénégalais ñu bëri ñoom laay rek ñoo koy mën a wax man dama am chance jeex ay ab euh, Eusebio ay ñoom père Demba Bay yooyu ngeen doon dégg ay mm-hmm. badugay mm-hmm. dama am chance jeex ñoom jeex ñoom doo fen lokot je donne un anecdote Boubacar Sarr lokot ñun ñoo bokk koñ angon njóoba bi mu doon joué nawetaan man boobu tuuti tànk laa maa ngi sol sama ay damay dem ñooxu ko dafa mel ni tey rek Maradona walla Messi nekk xale dangay ngay a dem laal ko. Mhm. pour wax ni laal naa ko. Mhm. lokot maay dem tafu ko ci moom dal yu muy joué maay jël fomp ko wala mu yónni ma ma dem siréel ko. Mhm. adduna <laughs> di dox ba ma taseex moom si terrain ma nekk capitaine am. est-ce loolu c'est pas donné. Uh-huh. Mm. Uh-huh. Mbaye da football nii match may dem di tëbi mur dimanche matin la parce que boo teelul dem doo seetaan match bi stade day fees dell ñun ay pinton lañ doon jënd ak ay pain paañ la ñuy dem jënd si maire yooyu pour mun a dem parce que doo mun a dem si kër lekk ba pare dem di seetaan ñooñu ñooñu àdduna di dox ba nga fubal ak ñoom nekk seen capitaine waaw mais loolu doo sant yàlla <laughs> mais loolu est-ce que gën juddu la walla gën non du loolu mm-hmm. kilifteef yàlla moo koy def bu joxee ne kii la kii la mm-hmm. man fa waaw ah, bu ñëw ci système bi. Hmm. Hmm. parce que système mu Aliou Cissé diiru parcours bi jëm ci éliminatoire yi ba ci coupe du monde yi ba fi ñu yegg si euh, système bi dañ ko dañ ko décrier parce que les gens disaient que ni Aliou se cherchait. mais je pense que ni ci ci Coupe d'Afrique bii nii. Mhm. Euh, am na benn stabilité boo xamante ne am na comme ni ma ko waxee au fil des matchs. Mhm. Euh, ñu ngi jóge ci sélection di euh, am benn équipe boo nga xamante ni dafa dafa taxaw. Mhm. système bi sistème Sénégal 4-4-2 lañ ko mës a xamee surtout yéen ci seen jamono. 4 3 day évoluer jamono yu métti gisoon nañ fi 5-1-4. wala 5 4 yooyu yëpp ci jamonoy Bruno Metsu gisoon nañu ko fii oh. ñu gis ni itam daf ñu daf ñu doon am. ay chance yoo xamante ni daf ko doon indi ak Aliou ëllëg système bi nan la war a mën demee pour ñu am vivacité mën am pressing boo xamante ni ci kaw lay nekk pour mën a contrer algériens yi. waaw man euh, pour beaucoup plus de respect à Aliou foog naa ni li mu njëkk a war a def mooy match contre Algérie mu jàng Algérie jàngat googu war na ko am beneen bi il aura avec lui de nouveaux joueurs. yoo xam ne c'est c'est des titulaires si si si si dispositif am muy Ismaïla Sarr ak Gana donc solo loolu muy yor si loxoom si loolu la war a mun a indi système am bu muy jouer mais man je je dis euh, système moo ñàkk système naar yi seen sortie de balle il faut nga bañ ko. surtout soo ko bañee rek tu les déjoues. Mm-hmm. parce que du du caxaan. ñoom loolu dañ koy réciter loolu la ñu xam. Mm-hmm. boo ko seetloo ñu ne ñoom bi ñu ko defee quinze premières minutes après dañ doon jël bal yi. Mm-hmm. dëgg la wala dëgg. mais bi ñu demee ba gis ni Sénégal existé tout la ñu commencé nag sonnal ñu foofu parce que. loo ci munti wax nag ils ont de vrais de très bonnes individualités. Mm-hmm. <coughs> am nañ ko. ñun ni ñu amee individualité. naar yi am nañ loolu. mais loolu nag li ñu doon jàngal mooy bu fekkee nit ñi dañu am jour yu baax. fexeel ba bu ñu feex boo xoolee Messi mm. problème yi muy am bu bu joué jee ay euh, Copa América la xaw ma ah, ak Argentine mm. ak Argentine ah. mais loolu la parce que ñëlee dañ koy xam donc dañuy yéeg seen kaw ba pare def benn marquage boo xam ne si moom du mm. féex mukk marquage à la kilo mm-hmm. mais ñun loolu mun nañ ko suñu milieu parce que man j'ai j'ai j'ai beaucoup aimé CV bu ma bett ku xam enrichissé bii. ak mhm. bi ñu amoon bokkul non non différence ici. ce qui veut dire championnat boobu joué mhm. muy la comme Angleterre la mel dafa metti ñooñu defar nañ ko Pape Alioune amul woon bii mhm. la preuve léegi sax dañuy wax ni euh, a ñu am bu fekkee dañuy ñaan yàlla jàmm jàppaleen dal leen suba Aliou bu am na lu muy waxee ak ñoom billaay naaru yi duñu féex mais mais père dañuy à chaque fois dañu gis ni dañuy pêcher ci les les les les derniers ballons à chaque fois dañ ciy pêcher deuxième ballon yi waaw mu mel ni précipitation la wala boog envie de de de vaincre moom mooy wala vitesse ak précipitation la ñuy la ñuy la ñuy jaxase. oui oui xam nga Amadou Diop wax na ko question style la ñee football d'école la ñuy joué ñun suñu jeu moo gën a direct. ñun léeg-léeg avec trois quatre passes rek mën nañ yegg si ci sa kaw suñu moo tax quelqu'un comme Mbaye Niang dugalul bii de il joue avant hmm. centre à la Olivier Giroud mais il nous donne de la profondeur ah oui il nous donne de la profondeur si ajoute match bi ñu bi ñu wax tout à ak Algérie match groupe ba ñun ak Algérie ñu match bi ñu joué ndekete ñoom boobu match lañ doon joué si hmm. pourquoi dañ ñu Sénégal meilleure équipe africaine la l'année ñoom existé wuñu depuis longtemps xam nga dañoo wax Euh, gëju Sénégal en finale. Mhm. ñooñu gën a yàggale. oui c'est vrai gën nañu final ñoom 90 lañ gën a yegg. dañu gëj a final. oui ñun 2002. 2002 ñooñu gën yàggale. te dañuy jékki-jékki daal di ne mais ñun fa ñu nekkoon ak ñi fa ñu nekkoon léegi on est plus régulier comme Sénégal moom lañ ñi mooy équipe africaine de l'année dañ ciy wane suñu bopp. Djamel mhm. Belmadi nii il a préparé ce match depuis un mois. Ouais. On est en poule hein, match de poule. mu ni préparé na ko depuis un mois nga gis xadar bi ñu joué ñii seen match dañ ko fanaanoo ñoom ñu joué si matchu qualification ñun ñu joué match de poule parce que ñu ñaar ñëpp on relevé de victoire match bi du ñu qualifié faf nag yàlla nattu leen ca nattu bi xam nga mooy la heureusement ñun on n'a pas gagné ce match. ñeme naa ko wax léegi. dëgg la xam nga kenn mësul gis perte. naan c'est très bien. Oui. heureusement nous n'avons pas gagné ce parce que ku ma ni woon attention vous aurez Algérie en finale ma ni ah je préfère ne pas gagner le match de poule mmh. difficulté supplémentaire la boo gagné match de poule dama ci am ay exemple du genre bi Algérie di gagné Coupe d'Afrique am en xam nga ku mu ubbee Nigéria ki nga dóor 5-1 en ouverture moom nga amaat en finale rëcc gagné ko 1 ma fekk benn coupe du monde ma ma ma ma topp benn coupe du monde ñu xalee ko ki gagné dafa gagné coupe du finale bi 3 2 équipe bu gagné finale coupe du monde 3 à 2 ki mu finalal ñoo bokkoon poule mu door ko 8 à 3 8 laa wax de juróom-ñett waaw. tout à fait. mu door ko 8 à 3 nga amaat ko en finale yow mi gagné woon 8 a 3 perte de finale coupe du monde bi qu'est-ce qui s'est passé match ba nga gagné en poule ca la defaroo. Mm-hmm. ca la defaroo moo tax ma ni léeg dama naan gis ngay match euh, da accumulation wu ay renseignement daf lay joué lu mm-hmm. Aliou Cissé m'a dit une fois lay il paraît que mësuñu gagné Maroc ma nekk que si mësuñ ko gagné mais ci ay match yu insignifiant mm-hmm. chaque fois que c'est important Maroc mooy génn mm-hmm. mu ni ma bi yoon Maroc du génn mu ni bi yoon Maroc di ñun bi ñu dem coupe du monde Maroc lañu la je disais à quelqu'un avant-hier foog nga xam ñun fi ñu jóge pour xam tey fi ñu toll Maroc ak Algérie ñun ñëpp ay français la ñu woon Maroc Algérie Sénégal Tunisie Guinée ay français la woon moom bi mu la koy wax ni ni Maroc du génn fan la ko teg daf leen jàng. non xool leen wala dafa am repère. Mhm. léegi dafa am repère fu mu jafandu pour jouer looloo ko joué loo li Maroc daan def échec aussi ñun ak Maroc mu sañ dem barage coupe du monde. en Espagne en Espagne la Sénégal Maroc en Espagne. barrage coupe du monde. <laughs> mais père ci côté boobu noonu li ma la bëggoon laaj moom mooy est-ce que ça t'arrive en tant que euh, koo xamante ne ne xelam màcc na lool ci wàllu euh, football euh, te it nga marqué sa temps bu baax a baax est-ce que mën nga mës nga jokkoonteeg ak ñenn ci entraîneurs yi maanaam jox leen seen xalaat ci li nga xamante ne moom moo di doxinu équipe bi soit ci Aliou Cissé mi fi nekk actuellement Alain Giré Claude waa est-ce que mës na la arrivé am compétition autrement la mu am. ak man ci loolu entraîneur bu ñu nommé mu ñëw ni ma je veux voir ñu daje benn pâtisserie toog ndékki fa lañ joxantee rendez-vous mu ni ma je veux que tu me fasses une liste d'une trentaine de joueurs tant de gardiens tant de mhm. libéraux tant de défenseurs axiaux latéraux milieu terrain offensif défensif attaquant ailier et cetera mhm. ndekete boobu temps dañ jox turu cinq nit ni ka cinq yi va les voir bis boo leen amee comme gan nga di nga nekk ci essentiel bi man quand il est venu me voir defe naa man rek la seet si hmm. mu dem seeti keneen kooku defe ni moom rek la seeti <laughs> mu dem seeti troisième personne kooku defe ni moom rek la seeti ba quatre ba cinq hmm. ñu defal ko list trente la ma jox laajoon ma jox ko trente trois trente la ma laaj ma jox ko trente trois mu dajale suñu ay liste cinq listes yi hmm. léegi cinq listes la amee bu gisee Amadou Diop trois fois daf koy garder. Mhm, mhm. bu gisee Jules Bocandé quatre fois daf koy garder. ñi mu gis deux fois lay commencé di éliminer équipe boobu moo dem 1983 ba vers 90. kon yow Karim Seck Claude Leroy Karim Seck non 83 départ na 83. 83 waaw waaw les foofu. Karim Séga Diouf. ñu jox ko équipe nationale mu remplacer bokkande ma toog mu yegg si sama kër j'étais surpris laay toog waxtaan mu ne ma xam nga lu ma lay day ma ne ko déedéet mu ne ma demuma woon Togo yow yaa demoon Togo <laughs> ñu Togo di gagné 2-0 ma ne ko waaw mu ni ma dafa préparé ma conducteur ma ne ko toogal ñu defar ko léegi ma génne mes notes ñu defar ko ñuy joué Togo à Dakar. je n'ai pas dormi ce jour-là avant le match parce que Karim yóbbu na lu nga xam ne man maa ko ko jox su gañee xayrun bu gañewul conscience vraiment sama responsabilité dafa engagé ñu ñëw joué 3 minutes Togo mën nañu 1-0 ici à Dakar 3 minutes mu mën nañu 1-0 ñu mujj ak moom cinq 1 mooy ca deux euh, Euh, Mamadou Diallo ya Mamadou Diallo. Mhm. Euh, euh, Mamadou Diallo am na ca Amara sax am na ca le cinquième ak Moussa Ndaw Salif Keita Moussa Ndaw ñu gagné leen 5-1. non Salif Keita après la Salif Keita mais ñoo ñu ñoo ko ubbi boobu forme de collaboration je disais à quelqu'un mm-hmm. Sénégal dafa bari gâchis dafa bari yàq bu ñu tàggook ak yow rek jeex na mm-hmm. war na am autour de l'équipe benn espèce su collège tout ancien entraîneur national. dugal la ci. tout ancien entraîneur national duñ la bàyyi nga dem boo nekkatul entraîneur dañ lay téye te kat boo xoolee ñu def cadre yi barewuñu am na ñu décédé. Mm-hmm. presque on a fait on a fait euh, euh, euh, quinze CAN moitié bi décédé nañ. Mm-hmm. de Libas à Pape Diop wàll gi décédé Koya décédé nañ. ñiy dund dañoo dem à la direction technique dara du réer mm. je lisais Amara Traoré. sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire il est là au Sénégal warul sore équipe bi euh, dafa de ñu nga xam ne ñoo entraîneurs yi allemand yi noonu lañoo liggéey liggéeyee autour de l'entraîneur il y un cordon de huit anciens entraîneurs ñuy ay anciens champions du monde ils échangent di defar di liggéey lu ñu génnee rek mu nekk saafara ñun dañuy yàq bis bi ñu bàyyee yàq. Euh, di jéem gàtt lan lan nga duppe ñun dañuy yàq. tu n'es plus entraîneur ñu bàyyi la nga dem. tu n'es plus entraîneur mu saa gis benn ministre des sports buy dem keroog bi mu waxee loolu dama ko yërëm ministre des xam nga qu'est-ce qu'il dit c'est dommage moment bi ma war a dem laa xam li ma war a def maa ngi dem li ma war a def léegi maa ngi koy soog a xam. boobu dañ ko dàq wala. parce que ministre euh, ministre c'est rarement def quatre ans. Mm-hmm. moment bi ngay dem ci ngay xam li ngay def tout comme entraîneur. Mm-hmm. léeg te nag entraîneur li tax mu metti da ngay defar ba pare trois dem. trois duggaat nga dooraat mhm. éternel recommencement Aliou Cissé 2015 2019 benn quart de finale est que xam nga Aliou Cissé est à 35 matchs 5 défaites ëpp na 35. waaw te défaites yëpp bu keroog mooy deuxième bi en compétition officielle ak Algérie mhm. deuxième bi la première coupe du monde contre Colombie 1 mhm. les trois autres matchs amicaux. Croatie sur le chemin de la Coupe du Monde Algérie à Alger amical Afrique du Sud en Afrique du Sud ay matchs amicaux léegi dafa engranger ay détails ay ay informations yu bare ñu ko daan ŋàññi fu nga xam ni tey les événements lui donnent raison. Mhm. bi ñuy door suñu Coupe d'Afrique ku doon gardien titulaire. Edouard Mendy wala. Edouard Mendy mhm. léegi kuy titulaire Gomis. Gomis c'est ça. Edouard Mendy bu dellu si woon léegi du jouer. du jouer ça c'est sûr. alors que dañu doon reprocher Aliou Cissé ñàkk am équipe type amul équipe type alors que loolu moo baax da ngay defar équipe bi autour de quinze bons hommes ku fi nekkul rek nga fàtte ko te ñun loolu mooy suñu style heureusement. Mm-hmm. Uh-huh. ñun mooy suñu e- mm-hmm. mm-hmm. naa également ñu wax ci kaawu euh, Pa Abdou Cissé moom tamit bi affaire bi commencé ba léegi gis nañ ne joué wul benn yoon ñenn ñi sax peut-être ci deuxième kii bi lañ leen di dugal titularisé wuñ leen mais au moins dinañ joué dana ci wax dara mhm. mais xam nga man lu ma la cee wax mhm. euh, ci compétition bu mel nii au rythme euh, deux matchs tous les quatre jours les titulaires inamovibles ce sont les défenseurs mhm. soo xoolee changement yi faral di am yëpp ca ca kanam la. attaquant yeeg gis nga boo gardé défense ñu joué deux fois trois fois gis nga Habib Beye bi mu ñëw en équipe du Sénégal ngandum joueur la mais dafa fekk équipe bi taxaw défense bi taxaw muy nekk xam nga lu muy nekk ku blessé. day nekk ko blessé pour mu jouer parce que c'est une ligne bu nga xam ne dafa changement yombul changer gardien de but wala changer défenseur nii dafa yombul gis nga Pape Abdou mën nga ko utiliser feneen demi défensif ci kanamu défenseurs yi mais pour le moment au rythme des matchs un par euh, tous les quatre jours léegi yaa ngi nii di final mënuloo jël risque bàyyi ku boot équipe bi ci gannaaw tey gan gan da nga koy jiital mu nekk ca kanam moo tax changer attaquant moo gën a yomb changer défenseur change pas une am na xew yoo xam ne sax boo cee dem da ngay jig ci nga ni eh bu bees la warul ma sol ko de su ma demee ba ca xew ba mu dajjeeku. <laughs> Ah, Amadou commande na waaw bii daal bu bees la warul ah. warul de. li laay wax parce que d' abord un entraîneur il cherche l' équilibre. Mm. Mm-hmm. beneen bi aussi da ngay wut lu la assuré. et que quelque part boo xoolee tey équipe sénégalaise bi. dafa retrouver son équilibre sur le plan défensif mais loolu est-ce que jar na ngay créer wala kii naa ko mosol compétition amul loolu li ngay jëkk ñaan yàlla mooy nga fexe ba téye dara mhm. mais comme jot nañ ko téye euh, je touche du bois ça nous donne beaucoup de satisfaction mm -hmm. l'équilibre défensif mm -hmm. mais, même défense bi ak arrière latéraux yu moderne yi ñu am loolu c'est un plus parce qu'ils sont offensifs euh, pratiquement boo xoolee Sabali wala nga xool euh, Lamine Gassama euh, ñoom ñëpp dañu bénéfié wu mhm. comme li li lii laay doon wax au au fil des matchs joueurs ci seen wàllu bopp sax dañu am envie wane seen bopp dañuy gagner en maturité mhm. te loolu itam c'est un plus loolu war na nekk lu déterminant ci match suba bi d'abord li ngay jëkk a apprécier si ñoom si ñaar ñi nga wax c'est de vrais arrières parce que nag offensive offensive te munoo arrière u dañuy am problème. défense d'abord. Sénégal Sénégal dafa mujjee retrouver l'équilibre mooy que ni dañu am défense bu dëgër. rarement la ñuy jë mais xam nga boo xoolee à part match Tunisie bi la ñu gis suñu góol lu bëri. mais yii ñu joué ba ba ñuy egg foofu. rarement ngay gis suñu góol. wax nga donc ce qui veut dire que Sénégal a retrouvé mmh. sa défense. Mm-hmm. beneen bi nag Kalidou mu ngay génn. Mm-hmm. mais man je jël benn risque di indi gan. Mm-hmm. mooy li la laay wax. comme Salif Sané moo fa nekkoon titulaire. blessure moo ko fa génnee. donc il retrouve sa place. mais mais yow en tant que entraîneur stratégie bi lan la lan lan la war a nekk dañu war a jaar ci aile yi eh, wala boog itam dañu war a bàyyi mbay comme ni mu doon def nga xamante ne buy dem day waabaale défense moom benn ouverture Sadio mën a dugg euh, mën a def dernière passe wala mu jéem a xuus dugal eh, nan nan la war a mën nga Algérie boo xoolee dëgg jàppal atal la tudd xaw ma. la hmm. eh, bokkatul il est blessé arrière latéral Nice ba. waaw moo blessé ah gis nga bokkatul. sant yàlla. traficule bay dem. ñun daal nañu ñaan. fii amul amul toog si plateau bi di wax lii ak lii. mi ñun suñu mission tey xam nga lan la d'abord dama ko doo dama ko bugg fàtte mais ngeen baal ma. est xam ngeen suñu douzième gaynde du su du douzième gaynde bi ñu tudd nii suñu douzième gaynde yàlla na ko yàlla yërëm te yéexuñu. c'est Ousmane Tanor Dieng. est-ce que c'est le vrai supporter des Lions. c'est vrai. daawul raté benn mat. Mhm. moom noo fexe ba doo ko ràññee match équipe nationale. donc kooku moom mooy suñu douzième gaynde. Mhm. douzième gaynde si année yii la xew ah. Mhm. il a toujours existé moom. il lui est arrivé d'ailleurs de réaménager son programme li ma doon wax ni Aliou li ma doon wax li ma doon wax ni Aliou. gagné la coupe pour le Sénégal mais également pour euh, Ousmane Tanor mu ngi noonu ce qui veut dire aujourd'hui euh, tous les ingrédients sont là. pour que sunu xale yi motivé wu. Mhm. beneen bi mooy que si dans le discours de Aliou waxoon nañu ñaari jours yi mais il faut mu jiital si Tanor parce que moom xam na ko booy jours yi sax xam nañ ko. donc ku mel noonu euh, ñu ñàkk ko balaa affaire finale bi di am. Mhm. ah mais yàlla moo xam. parce que nag jooy nañoo jooy. Mhm. ba jooy suñu kilifa googu dem. waaw waaw damay faral di wax euh, ñenn ñi sànq si dëj bi ma nekkoon man leen xool suñu yaay jiite gaañu na. Mhm. mais dëj yi may dégg tey dafa bëri. Mhm. ah. le malheur ne vient jamais seul. xëj na. bànneex moo ci topp. parce que 2002 mooy suñu repère. waaw waaw. suba yooyu gudd yooyu yéen ñi ñëpp dund ngeen ko. dëgg la la lu gën a neex Sénégal amul. dëgg la waaw bañ sa jógee. bataloo joolaa la. on a pleuré. ça ne vient jamais mm. seul. dëgg la bii nag ñu ngi mm. jooy rek. way way ay yàlla. way way su na fi coupe bi dugg. Mm-hmm. muy sunu jàmm. voilà on est euh, au terme de l' émission ah maanaam juróom minute rek ñeenti minute sax moom moo moom moo des. waaw léegi Ndeye Dime ak. Euh, voilà ak euh, équipe bu Aliou bu bees bi est-ce que mën nañu wax ni beneen page football bu bees mooy ubbeeku. xam nga luy ubbeeku. Mm. su ko mën ubbi. gagné coupe d' boo gagné coupe d' rek beneen page la. militaire bu nekk dans l'armée te amagul grade yow war nga xam ni ñu ko daan tuddee. gobi ma yàgg lekk graay de. tàncaar bi yàgg lekk graay. kon il faut <laughs> euh, benn étoile. Eh, amul on a waaw amul. ci épopée bu moderne bi gañewuñu. gañewuñu dara on est un football gobi. gis nga bu ñu gañee coupe d'Afrique bi. loolu mooy ubbeeku mais soo demee ci dëkkul ñaar yi mag ñi am culture xam nga lu ñuy wax le bon que vous avez fait ce n'est même pas du un bond c'est un vol hmm. xam nga naka xam nga ñun Tunisie Maroc Algérie Guinée Côte d'Ivoire français la ñu woon les Tunisiens les Marocains et les Algériens jouaient en équipe de France maa ngi waxtaanee tout à l'heure pour étayer la thèse selon laquelle Algérie dañ ñu mag euh, Lamine Diack a été champion de France sous le maillot du foyer France Sénégal booba français la ñu. Mhm. xam nga naka li ci bokkee day toog Dakar di demi compétir yi en France parce que nous sommes français voilà comment mu nekk champion de France ñun suñu club yi daawuñu engagé en Coupe de France te français la ñu woon xam nga ñeneen daan engagé naar yi naar yi dañ daan engagé en Coupe de France. am na benn équipe bu tudd Reims en France les années cinquante mooy Paris Saint-Germain tey moo ossaturé équipe de France bi dem coupe du monde euh, cinquante ba demi-finale Reims boobu moo dem demi-finale avec les Coppa Fontaine Piantoni Vincent Panverne Laurent ñoom Claude Ab Reims ay années cinquante huit ngi noonu xam nga ñooñu bi ñuy dem xam nga ñooñu bi ñuy dem à la coupe du monde xam nga ku leen éliminé coupe de France El d'accord euh, uh-huh. xam nga LBR fu mu nekk mm-hmm. xam nga LBR fu mu nekk xam nga LBR fu mu nekk ci ci Algérie mm-hmm. c'est comme si Guinguinéo prenez euh, le PSG Guinguinéo on est français d'accord jàpp PSG mm-hmm. en Coupe de France éliminé ko d'accord yaa ngi wax ni war nañu jouer ngir Tanor Dieng war nañu jouer tamit ki nga xam te ne mooy Sidy Lamine Niass nga xam ne am na ay kàddu mu yëkkati woon teg ko ci Aliou Cissé mu mel ni tey jii yàlla bu yaakaar dama ko archivé le papier bi si di bindoon. ci wal fajiri. xam na élément bi moo pare pour lui dire ton heure viendra nañ ko nañ ko dem seetaani sax vite fait rek. doyen dama ko archivé. ayca mi ngi ak yow. ayca maa pare na ñu dem seetaan ko daal di dellu si waat. territorial bi loolu itam moo ma tax a jóg li ma gën a tax a jóg du rek football waaye nag relevé défi moo tax ma wax ko ci tàmbali bi wane fierté bi ñu war a am ci suñ bopp wane kon point yooyu yëpp. jàpp itam Aline mi nga xam ne du ma wax rek ne ab doomi senegal la dafa nekk sama yar ma xam ko xam yaayam xam baayam ñu bokk lépp boole ñu ma xam ne loolu nekk ci moom jom boobu su ko poussé dana yeggali Sénégal fi doon xaar ak li doon xaar ak li mu bugg looloo tax ma wax ko ne ko lii jot jot na jógal puisque xam naa fi nga bokk